faama. waaw këccëg. faama man tey laa tiit ci àddina. xam waral lii. faama man musuma gis lu mel ni waa koñ bi kaay laa ilaha illallah. lu mu saam. Ah, faama. loo am woneel. barki Serigne Bamba. Cheikh Amiyaaba. laa ilaha illallah. mi nga xam ni. waaye. daa woote guddi ni sama na sama kilifa gi dem. ay waay lii saa borom kër. wuy yaay waroon woote laylatul xadri. billaahi. ma di ko woote. laylatul xadri da la woote. fondation ab Sécurité fondation ab Sécurité yëpp. barki Serigne Bamba ñëw wuy si. yaa ngi doog a commencé nag. madame Mbacke ne. kon kon kon Fama. Fama ab Sécurité. waaw moo yónnee or yi yëpp pour laylatul xadri bi jox ko ami Cheikh Yaaba mi. xam nga ñaata la ma jox ci o waaw jëlawal yi ñaar fukki million juróom-ñaar fukki million mooy soixante-dix millions de dama ni ah damaa bëgg nga déglu ma maa ngi lay dégg soixante-dix soixante-quinze millions la jox juróom-ñaar fukki million ak juróom ak juróom moom la ma jox soixante-quinze millions ni ko xam nga lu ma bëgg muy soixante-quinze millions njàngum jiw la jàng ba tey ca fer illallah nga jënd ko ay or dama maa fi ñëwoon daaw si leen war na maa xam am sa juróom ma eh, ami Cheikh Yaaba la teel gi ne ko ami laa ilaha la laa kon bii mu takk nii ci la bokk nga commencé fii bii mu takk ci la bokk bi mu xëyee ci suba waaw doomam ji jigéen ji baax ji. waaw da koo takkal nag tabaar fakkal la. waaw. collier bi mu ko takkal. laa ilaha ceen ko takkal. laa ma xam muy lan. ak ban marque or la. waaye néew lu kenn mu sëgg. or. la ko jox ndoxalee ko ci laylatul xadri bi lii musuma ko gis. ay collier la. musuma gis lu mel nii. ticket yi. waa lii lan ban genre ban genre yaa ngi nii kenn musu ko. wóoyaa. def na ananas. aywa. def ay fleur. ku am woneel. woneel. ma teraanga teraanga këcëb ku am woneel naa waaw waaw absa absa giro nee na madame Amérique Mbàkke barki sëriñ ñoom lii doy na kon dal mama ami Cheikh Yaba vingt kon soo paree ci bii waaw bii ngay laal boo paree ci bii laal bii boo paree ci bii laal bii yaa ko moom ndax da ngaa baax da ngaa gore. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu presse sénégalaise bi nga xam ne ñoo fi daje tey ci bis bu tedd bi di bisub laylatul xadri bi nga xam ne laylatul xadri xayru min alfi sahr sëriñ Cheikh sama sëriñ sama wasila boole woon ma ci njabootam daan ko woote ma koy ànd ak moom mu joxoon ma ci cër bu rëy ci bis bi. ma xamit fonk gi mu ko fonkoon ak ni ko daan dundale bi ma wanee ginnaaw nag làqu ci samay bët ma continuer di ko dundal tey jii nag yemook ñu koy ñaanal tamit ndax juróom-ñeenti fan ci koor gi la génnoon àddina heure bii daaw ñu ñaanal ko ci bisub laylatul xadari kon laylatul xadari yëfam la ñu ciy feddali rek suñu kóllëre ak moom bu bis bi ñëwee ñu koy def na mu ko daan defee di ci def ay bernde di ci jàng alquran di ci jàng xasida am na ay kaamel yu ñu fi wàcce yàlla na ko fekk fa mu tëdd ak baayam bu baax ba sëriñ Moustapha Massamba ñuy sant bu baax di gërëm bu baax ñi nga xam ne participé nañ ci bis bi yëpp dooleel ma ci muy soxna ay Saliou mu Seex Béthio soxna Absa Giro sama soxna nga xam ne sama mag a ko yor ma cërale sama mag ci bis bi mu taxaw ci jox ma ci matériel boo xam ne ak li mu ci def daanaka mat na 100 millions kon donc maa ngi koy sant di ko gërëm waaw Daaru Karim laa ko doon defee ak moom waaye xam nga rek yoonu murit soo fi bàyyi ko ki topp ci sa xalifa mooy toog Serigne Cheikh it ab xalifa ma nga fa muy Serigne Modou sama doom ju baax maa ngi koy sant di ko gërëm réeroowu ma ceeg moom benn yoon waaw ma xam ne rek comme soxna may sama doom am na kër Daaru Karim waaye pour lu gën a yaatu rek ak samay gan moo tax ma def ko fii comme dama am yu may simb daaru Karim te sotteegut ma bëgg bu sottee rek incha allah ma di ko defee foofu ndax man awma lu du <coughs> tam ña ngi ko denc ci pencum daaru kon daaru Karim mooy suñu cër daaru Karim moom la ñu am yi ñu fay mébét ak di ko fa naal heure bu pare ñu ñu defee ko foofu maa ngi sant soxna Aïda <coughs> ndax taxaw na ci bis bi bu baax a baax a baax te du bis bi rek lay taxaw day taxaw ci yeneen a yeneen di sant bu baax soxna ab sa giroo madame Mbacke <coughs> di sant borom bi sant bu baax soxna astu bu Serigne Moutala di sant Serigne Cheikh mi nga xam ne ak maa xam foofu ma jële ma yóbbu su ma toogee ñu may jox ay valeur cent di ma defal lu yàlla ak jëmmam tax sama Serigne ak ma laa gërëm yàlla na yàlla yokk say leer te tas mu ci sa barke